air lakali gunanas lakali basa gunanas ndeysaan ma ngay soka sumne seetina seetina arno ani Siteu bu Ngor fum ne Siteu bu Ngor géej ko dafa lalu iska demul geej demul da dem geej geej Ngor dan wala geej yof lolu lolu lolu loolu nan yaay yaay boy geej dem mol dem na geej mol dem na geej waaw baru da dem ci geej géej ga sambara daa dem ca géej mhm. mi ngi noonu ndeysaan kooku mooy ñibbi na gànnaar naar ñibbi na gànnaar gisatu ma ko de gànnaar mu ngi naar soga sum réer est-ce que nekkul di naan zirik muy naan nga ni est-ce que nekkul di naan zirik waaw zirik mooy lan <laughs> mooy njar bu ci alaaji góor naar naar naar naar fu mu dem bu naanul njar naanul dara bilaay ma maa la bilaay naar bëggul laax bëggul laax naar naar lu mu bëgg. naar bëgg na laax kay. waaye naar lu mu bëgg. bëgg na zirik waaye bëgg na laax. waaw waaye laax ko ko bañ. boo ko laax day naa soow ma. laax waaye alaaji góor laax ko ko bañ. laaxu ngénte yi ak laax yi ñu toog suñu kër la ma tax mënuñoo bokk cafka. laaxu ngénte. ak laax yi ñuy togg nii suñu kër yi te dañ ciy fere te cafka yi mënut a bokk. doom jaay tax doom ja. waaw wax nga dëgg doom ja da ciy participer. da ciy participer. waaw. laaxu mbooloo. laaxu mbooloo la. laaxu sa satoo la. la am cafka waaw ah, billaay bàjjan ba day ñëw bàjjan ba day ñëw ba tante yi ñëw indi xam-xam yo xam-xam ya daja fa waaw foo jaar dolli ma dolli ma ñu naan laax bi jeex na may la ñu jàmm ak ak omelette mayga ak omelette kër omelette mayga ak omelette kër lu tax duñ bokk caf ka mayga de moom ku ne xam na caf kam duñ bokk xet ñooy na waar te ñoo bokk na ñuy rosé loolu yéem na ma de mi ngi doon ndeysaan bool yaa bokkul lay am na solo. te mbokk yi ñu ngi leen di bégee. lii mooy Sénégal ndeysaan. loolu bég si ñun rek bég nañ lu ko ëpp si yéen. da ngay commentaire mbokk yi. di leen jaajëfal. ñu ngi leen di bégee. ndeysaan. am na maa ngi lay bégee Baye Kane maa ngi lay bégee ndeysaan. yu ko Ismaïla ak lamb bëgg dina dina ndeysaan dañoo ñamante kenn ku ne xam nga sa morom lu muy saaf. ku ne kenn ku ne xam na morom. kenn ku ne xam nga sa morom lu muy saaf. jàppante nañ ba léegi ñoom ñaar. Eh, da koo bëgg a kal jéem sal ba ngay imposé mbot. na benn ba moom jaatu jot. ndeysaan waaye fa mu téye baaxul. sengoor la jaatu jot fa mu téye baaxul. sengoor la téye bu sengoor yi daggee rek boo moytul nga toog. te fa toog boo jógee du neex say mbokk du la neex. maa la ko wax. laay sengoor kenn du si jafandu. waay waay lamba doy waar. lamba doy ka doy waar. Eh, ñaari mbër yi eh! noonu lu mu bëgg. jéem jël. ay ndaanaan la ñooy bërëkat forcé. ay bërëkat lañu. day forcé Fourrière day forcé. dale oh daan na ko. daan na ko. daan na ko. doole doxul jàmm. Fourrière daan na ko. yóbbu na ko Fourrière. daan na ko. yóbbu na ko xoolal grand bolo daan na jaar jolof si kap jàmm gën si kap ma loolu si kot suba muy noonu ndeysaan kot suba jëlal kot suba mbooloo ba bëri na El Hadj Diouf mbooloo ba bëri na nga jëlal ma mbooloo ba jëlal ma mbooloo ba jëlal ma mbooloo caatu fourrière ba jëlal ma mbooloo fourrière ba mbooloo ba bëri na ndeysaan nañ ko bàyyi xel kooku mooy fourrière grand F mbooloo Fourrière a ngi noonu Fourrière a ngi noonu ndeysaan Fourrière Grand Yoff mbooloo ngi noonu jëlama loolu mbokk yi Fourrière du ne stade bi ndeysaan du ne stade bi moom Fourrière xale baa ngi noonu laa ilaaha illallah xale bi mën naa bëree laa ko mën na bëre trop mën na bëre trop. wane na njàmbaar wane na fulla wane na fay. ndeysaan waaye waaye bis bi dafa demoon ba xaw mel ni lu ko dépassé. ndeysaan. mu ngi noonu ndeysaan. waaye gis nga gis nga lu ne si ginnaawam. xale yaa ngi noonu. lii bilai sas la. sas la. Grand Yoff tay ku doon jëndali sa maam reer. bilai maa la ko wax sa maam du reer. maa la ko wax ndax benn xale dëgg dafa xool lii suñu ginnaaw. bilaay maa la ko wax. ndeysaan. gone yaa ngi noonu di fuddu. ña ngay fudd dañoo gëj a dañoo gëj a am ndam kat. ah dañ ko gëj. dañoo dañoo gëj a am ndam. cey ndam. dama neex. dama neex. waay waay ndam maa ko xam. ay maa xam ndam. dama neex. maa xam la muy saf. ay boo ko fanaanoo. maa la wax. boo yeewoo boo yeewoo sa kanam day changé. ñëw ba xale yi ñaan. mbër maa ngi noonu. sukk na ñaari bati woom ya. sukk na ñaari bati woom ya. jëlal fourrière. Fourier a ngi noonu. dalal na loxo ya. mu ne Grand Yoff gaa ngi noonu. yóbbu na caat Fourier. mu ne Grand Yoff mu ngi naan léegi léegi. kooku mooy Fourier. Fourier a ngi noonu. Fourier Grand Yoff mbooloo. Fourier Grand mbooloo. xale baa ngi noonu. mu ngi noonu ndeysaan. xale baa ngi noonu. kooku mooy Fourier.